Mamadou Niang maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay Ndeye Comba. Mamadou Niang nga nekk chargé de communication bu association nationale des victimes d'accidents vivant avec des handicaps et leurs familles euh, si fan yi rek ngeen amal conférence de presse ngir wax euh, conditions yu métti yi ngeen di dundee est-ce que mën nga ñëwaat ak ñoom ci situation bi nga xam ne yéen a ngi koy dund les accidentés du travail. maa ngi lay maa ngi lay nuyu. Euh, di la di la fay euh, di la sant di la gërëm Ndeye Comba Moreau euh, di sant waa waa seen télé bi waa Rewmi FM di profité encore di la santaat parce que yow moom yàgg nga topp ñi ñuy accidenté du tey man na ay at duñu duñu jox micro ñuy wax suñu suñu lu ñu metti donc par ma voix association bi ñu ngi lay gërëm di la sant di wax ni effectivement ñu def nañ benn tournée dans les su suñu ñoo jël suñu propre xaalis nag def ko euh, suñu association nekk na association boo xamante ni amuñu kees amuñu dara mais dafa am euh, ñoo xamante ni ñoo ngi ci euh, dañuy ñafe xool nu mën a amee dara bu nu amee ñu jël suñu xaalis daal di génn def tournée dem xool suñu mbokk yi def accident si àll bi si région yi en même temps dem defi xool accident yu mujjee am aussi sargal ak ak Louga ñu xool siliko ñu xool lan moo lan lan la nan la ñuy dundee Euh, moo tax bu nu ñibbisee ñu nanu xool ñu def suñu point de presse pour wax si par rapport ak situation bi teg si encore euh, comme ni ñu ko yàgg defee def sunu sensibilisation pour wax ñi ñi def ñi euh, ñi dem ga ñi dem màggal Porokhane ñu ñu ñu xool nu nu mën a bàyyi xel tali bi lu ñu te lu ñu fas yéene def la chaque fois bu événement amee ñu mën a génn wax ak population bi. Euh, si loolu lañ demoon dem xool situation bi. voilà euh, léegi yéen tey ji euh, Mamadou Niang lan ngeen di réclamer état wu Sénégal par rapport ak conditions yi nga xam ni yéen les accidentés du travail yéen a ngi koy dund wala sax yeneen accidentés yi. waaw ba boo xoolee accident du travail ñu bari ak boo xoolee dinaan accident du ñëpp ay accident du boo xoolee ñi di liggéey ñi dem di liggéey ñu bari ay liggéeykat la donc ay accident travail la waaw mën na ni ñëpp ay accident lan donc ñun ba nu sunu lu ñuy gën a lu ñuy gën a lu ñuy gën a ñaxtu lu ñuy gën a wax rek mooy euh, comme li ma waxoon d'abord dañuy sensibiliser sunu projet bu nu am léegi mooy dañuy sensibiliser du ñu mën di leen gën a génn ci télé di wax pour wax ak nit ñi pour ñu bàyyi xel bu baax affaire accident pen ñaareel bi dañoo bëggoon aussi euh, di wax euh, di sant Euh, si suñu communiqué parce que ba ñu demee foofu euh, suñu mbokk victime yi dañu ñu yóbbante ni nanu sant gërëm euh, suñu xalif généraux yëpp sant gërëm pompier police gendarmerie ñëpp di sant nag di gërëm suñu xalif général mun Muntaxa Bachir ndax ba mu déggee accident bi moom yónnee na nit yëkkati na xaalis bi toll na autour de quarante millions daal ni koy jox dimbale ñu defoon accident sargal mooy yi victime yi nekk foofu yu nekk yu euh, mooy accident ñaari accident yi mujjee am fii Dakar te mu métti trop te am à hauteur presque de soixante cinq morts euh, ñu sant di gërëm le gouvernement mooy président Macky Sall son excellence ndax aussi yónnee na ministre yónnee na ay ay docteur lu nekk yónnee nañ ko teg si yëkkati lu mat presque trois cent millions daal di koy teg su loxo victime ba ñi am ñaari million ñi am un million mu nekk loo xamante ni aussi ñoom yóbbante na ñu ñu ngi koy sant di ko gërëm te loolu tax na aussi ñuy wax ni loolu doyut ndax lu gën a am solo du tàng-tàng bi tey nga yëkkati xaalis am joxe lu ëpp solo mooy nga suivre nit ñi tey imagine Ndeye Comba koo xamante ni xale la tey am na vingt cinq ans bokkoon na si exemple te bari na nekkoon na professeur doon jàngale tey perte na tànkam tey tànkam bu mu amoon mënutu ko léegi nan lay demee fi muy liggéey mu war a tëdd imagine am na ñoo xamante ne ñu bari si ñoom ñoo xamante ne tey seen ay mbokk seen rakk seen yaay ñii seen papa ñi seen ay maam ñi dundutuñu te ñooñu ñoo yoroon kër yi léegi nan la ñuy dundee te dama koy wax di waxaat koo xamante ni yaa doon jël ay nit du leen dundal di leen jàppale tey jamono dox tey ba ñooñu tey yaakaar si ñooñu tey si ñoom nga yaakaar dafay nekk lu metti moo tax ñu bëggoon tey état bi bien que dimbali nañ ci loolu que nañu bàyyi xel bu baax ni suivi dafa am solo mooy suivi psychologique bi surtout parce que da nga si gis famille lëmm boo xamante ni waa ji pet ñaar ba ñetti nit ñun gis nañ loolu koo xamante ni si famille bi ñetti nit gaañu nañ si mais kooku il faut moom suivi psychologique boo amee suivi psychologique il faut moom suivi euh, suivi suivi financier boo xamante ni aussi da koy dimbali pour mu mën a xool nan la mën a dimbalee ay mbokkam te loolu kenn mënuñu si jàppale kenn mënuñu si dimbale góor dul état sénégalais moo ñu si mën a jàppale te si moom nañ si yaakaar moom moon si mën a jàppale ndax moo ñu mën a dimbali si loolu moo tax ñuy ñaanaat état pour lool mu bàyyi xel ces victimes d' accident gis nga ñun bu ñu defee accident ba pare ndeykum ba dafa nekk situation boo xamante ne après da ngay dund lu métti li ngay dundee li métti da naan da nga war dem caisse sécurité sociale caisse sécurité sociale pour dem fa xam ngeen problème bu mag la boo fa demee balaa ngay jot sa dossier da ngay yéeg di wàcc yow miy accidenté imagine yow nga nekk xale wala mag nga mën a nekk amoon ñaari tànk wala amoon ñaar loxo tey nga dese benn loxo yow yaay dox sa këyit yëpp ba mu mat. Mhm. kenn du la si jàppale. Mhm. ñaareel bi aussi entreprise yu nga doon dem di liggéey ñu si bari comme ñun da ngay dem ñu dàqale si biti parce que danaa lu nga mënoo mënatoo ko dara lu la protéger amoo dara lu la protéger donc loolu moom la ñuy wax gouvernement mu gën ko bàyyi xel teg si encore euh, boo xoolee ba si biir euh, jigéen ñi ñu pet seen ay jëkkër amoon ay doom bari nan ñoo xam ne seen jëkkër gaañu na léegi nan la ñuy def seen ay doom seen doom dootuñu jàngi ñu bari si ñoom tey seen doom yi toog nañ dematuñu léegi ñu mel noonu aussi il faut aussi état bàyyi xel pour xool ñooñu nan la ñuy dimbale seen bopp dimbale seen ay doom te ñun suñu association ñun mënuñu loolu di ko wax di ko dénoncer pour que état bi di ko yëg di ko xam teg si encore as transporteurs yi ñoo xamante ne ñoo ñu doon transporté ñoom tamit ñuy bàyyi xel ni ñun ay nit lañ. que bu ñu defee accident ñun tamit nan ñu bàyyi xel ni victime yi ay nit lan nan xool na leen war a jàppale nan leen war a dimbale ak nan leen war a bàyyi lay xel pour ñu mën leen dimbale donc loolu la ñuy demandé état bi di ko demande transporteurs yi ko demande képp kuy sénégalais ak képp koo xamante ni mën nañu jàppale pour mu jàppale ceux qui vivent avec des handicaps à vie après leur accident parce que accident nekk na loo xamante ni duñ koy wax tout le temps jommul kenn suñu président Sow da koy wax accident jommul kenn waaw jommul voilà euh, Mamadou Niang am na instruction yoo xam ne njiitu réew mi joxe woon na ko pour yéen seen ka euh, ñu taxaw ci instruction yi ñoom ba léegi euh, dara def si avancé wul waa wala déet jëfe nañ ko wala jëfewuñ ko. ëpp na ak ba ko président Sall waxee mois de novembre mois de décembre mois de janvier même premier mai waxaat na wax na instruction pour ñu toppatoo les accidentés joxe na instruction pour même yu fekkee ñoo xamante ni sax danoo nekk quelque sociale. pour ñu xoolaat seen revalorisation rente ak seen condition d' accident mais jusqu'à présent dara am refonte code de sécurité sociale bi loo xamante ni la dañ ko war a mettre en place lu gaaw la loo xamante ni dañ ko waroon mettre parce que loolu de sécuriser képp ku kuy liggéeykat koo xamante ni mi ngi xëy di wàcc mais jusqu'à présent yaa di loolu yëpp instruction yi gisuñu si dara dégguñu def nañ fi sax grève de la faim. Mhm. pour ñu respecter in pour ñu respecter loolu ba ñu ko respecter le même jour ministre génn na si seen rajo bu tudd RFM ak yeneen rajo yi wax ni non non ça y est dinañ ko mettre en place le plus rapidement possible c'était au mois de mars. Mhm. am na nag presque mais jusqu'à présent y a rien donc bu ko gisee mooy caisse de sécurité sociale toppatoowul accidenté yi assureur yi toppatoowul faalewul accidenté yi donc loolu moo tax ñu bëgg suñu état sénégalais pour mu ni. instruction yu président joxoon dara dara dara nit ñi topp ñu ko nit ñi nekk ñu si te nit ñi wax ñu euh, ñu sax si jëm ndax gas nañ ko suul lu ñuy xaar rek comme li ñuy wax ay accidenté lan ay néew di doole lan nan leen bàyyi après bu leen bàyyee après dañuy jaar dañuy jaar dañuy jaare noonu après ñu mën a faatu benn yoon noonu la ñuy noonu la ñuy noonu la ñuy raisonner tout le temps. Hmm. yéen bu weesoo conférence de presse bi Maodo Niang fan yi am ngeen plan d'action leneen lu ngeen a def pour président xam ni situation bi vraiment dara amélioré aussi. waaw ñu ngi xaar parce que comme génn point de point de presse wax dëgg yàlla am na ay kilifa yu nu woo yu nu dalal ñun waxtaan ak ñun. ndax wax dëgg yàlla président Sall am na ñu ko jege am na ñoo xamante ni macha allah ñu ngi wax ak ñun ñu ngi dala xool nan la nu mën a dimbalee ñoom sax ñu ngi yëkk seen poste ñu duñu duñu dimbali donc si loolu ñu ngi xaar bu ñu demee tamit ba xam ne loolu gisuñu ko ñun danañ tegaat beneen plan parce que même bu ñu mënee woo la presse internationale dinañ leen woo. bu nu mënee bind presse internationale dina leen bind bu nu waree bind tamit organisation euh, euh, nationale euh, internationale du travail dinañ ko def mais bu fekkee loolu mën nañ ko def te ñu def ko bu fekkee aussi même bu fekkee loolu mënuñu ko aussi ñu xool nan la nu mën a organiser ñun suñu àddina pour xool na la nu mën a dekkee même bu fekkee dañuy def ay grève wala leneen parce que jot nañ fi grève de la faim. Mhm. dafa nañ ko fi y a un an mu réussir trop. pourquoi pas ñun ñëpp ñu dem buntu caisse sociale wala ñu dem buntu fenn foo xamante ne comme yàlla def ay ñum ñu bari si ñum ay néew doole ñu dem toog foofu xaar yàlla rek parce que xam naa ni moom comme dañ ni fii Sénégal boo xasee ba accidenté dee nga rek ñu bari ñu xaar yàlla dee benn parce que loolu moom te yaakaar naa ne loolu moom incha allah duñ si jot du duñ duñ fi ndax action yu président def nii euh, si si accident euh, bu mujjee am nii lu ñuy saluer la te dañ koy ñaan mu continuer mu continuer dimbali les accidentés parce que soxla nañ ko. Euh, léegi ba léegi Mamadou Niang par rapport a accident wu euh, circulation yi sànq sax yaa ngi koy wax si biir wax comme bu Sikili ba Sikili ak Sakala euh, est-ce que yow pour yow mesure yi nga xam ne état jël na ko doy na pour xeex accident de la circulation yi baax na wala baaxul. Dékumba doon ñaan yàlla mu dolli ko baax na te ni ñuy yàlla mu respecté ko que mu faire respecté ko. nekk na loo xamante ni kenn waru koo caaxaane waaw président Sall ñu ngi koy wax di wax ministre euh, Mansour fay di wax képp koo xamante ni ñu ngi liggéey ak ñoom nanu taxaw parce que loolu ñun soxla noonu parce que ñun ñoo xam accident lu mu saf ku ko màcce koo xam euh, dañuy wax naan dañuy def prévention mais imaginons euh, ANASER wala leneen loo xam ne def prévention mais prévention bu gënoon gaaw kay ñëw indil ñu ñu accidenté nga teg leen nga wax leen ñoom ñoo gaaw balaa nga wut ay vidéo di teg ñu nous sommes des personnes qui ont vécu des expériences douloureuses. Hmm. ñun taxaw nan def suñu campagne pour sensibiliser ñi parce que bëgg ñu mel ni ñun ñoo ngi nii dañoo handicapé à vie ñii xam perte nañ seen papa à vie ñi nga xam ne perte nañ seen yaay à vie ñooñu ñoo mën a taxaw pour témoigner boo xoolee dem suñu coopérative am na benn xale bu ndaw bu fa nekk dix ans la perte tànkam accident moo ko ko teg. Hmm. loolu yëpp mënoon nañ ko teg bu ñu ko tegee bu ñu ko xoolee ñoom dinañ gën a xam ne dañuy fonctionner bu si yàlla bu bu ñun on prêt pour soutenir ce gouvernement pour que ces mesures là pour que le plus rapidement possible mu mettre ko en place que bu ko mettre en place que lu mu ko mettre bu en place pour mu gën ko taxaw la ko mettre ko en place na si gën a taxaw te nu nous le soutenons ñun dañ suñu sensibilisation suñu prévention yooyu yëpp ñu ngi koy wax pour nit ñi gën a respecter loolu parce que bu ñu taxawee bu ñu gisee nan xam ne ñii lu dara dal la lu accident te accident routier nekk na loo xamante ni choc bu muy def si yow euh, doo ko mës a fàtti dans ta vie parce que da ngay def accident bu ñuy def enquête yow la ñuy woo yow mu dund dunu woo si mbedd mi dunu woo kenn yow yaa mën a wax chauffeur bi danoon nelaw wala chauffeur bi dafa yoroon téléphone wala chauffeur bi lii wala pneu moo toj que moo ko mën a wax ku nekkoon si biir accident moo ko mën wax mais keneen ku nekk si biir accident mun la ko wax léegi ñun ñooñu yàlla def dund nañ mais genre ñun ñooñu da nga di jël nga jàppale leen benn remettre leen parce que lu la leen dal noonu man na dal ku nekk accident jommul kenn nit ñañ ko doog a xam nag. voilà mais nekk na loo xamante ne jommul kenn moo tax loolu aussi ñu ngi koy soutenir pour wax ni bu mu ko bàyyi te ñun événement bu amatee muy poroxaan wala lu mu mënti doon ñun du leen génn bu nu état jàppale dinañ génn bu nu état jàppale dinañ génn dimbali nit ñi wax ak nit pour que nan moytu accident yi nan moytu tali wax ak transporteurs yi taxi ni leen na ngeen bàyyi xel bu baax ñi ngeen doon liggéey parce que bu ñu transporté ba yàlla def te ñu mel nii tey yéen am ngeen ci part boo xamante ni responsabilité parce que yéen seen bopp xam ngeen ni tey yii ñii ñii def handicap que bu ñuy refaat seen revendication wala bu ñuy xeex ñu bàyyi leen ci xel bu baax baax parce que ñoom tamit war na mën am dara si. voilà Mamadou Niang Rewmi FM mi ngi lay maa ngi lay jaajëfal Ndeye voilà may fàttali yow yaay chargé de communication bu association nationale des victimes d'accidents vivant avec des handicaps et leurs familles des handicaps et leurs familles des